salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi safoo Click Dakar 221 tey nag dañu leen demal ba 2STV à émission confrontation bu Bijou Ngoné ak ki nga xam ne mooy Big Taf mon ami mon frère tey yaakaar naa tàng na jëpp parce que dañoo dalal ki nga xam ne mooy Moustapha Dramé ak Soxna ay Aïda Saliou waaye yaakaar naa émission bi mujj na li nga xam ne tàng jëpp jëpp ba Moustapha Dramé dafa mujj quitté li nga xam ne mooy plateau bi gedd micro bi dem muy loo xam ne doy na waa trop ak soxna Aida Saliou la grande voyante nekk fële ca parcelle yaakaar naa Moustapha Dame dafa am posé question bu mu ne musique dafa araam di wax di ŋàññe li nga xam ne dafa araam saa xam nañ ko ci moom waaye tey moo ko ci plateau bi nag waaye soxna Aida Saliou da ko tontu ne ko li nga xam ne musique dafa araam euh, léegi musique ak li nga xam ne mooy kàcc muy ay fen lan moo gën a araam ak lan moo gën a bon sa yàlla léegi après Moustapha Dramé nag question boobu Euh, touché ko mu ñàkk tooy xib xamatu lu muy wax muy mujj di wax bu ngoone su ma xamoon ah da nga may booleeg euh, kii du duma ñëw ci plateau bi parce que da nga affiché def sama affiche man kese ñëw ba fii nga andi beneen euh, invité kon ma xamoon carrément plateau bi du ma ñëw kon Moustapha Dramé dafa mel ni dafa ragal ki nga xam ne mooy soxna Aida Saliou pour ñoom ñaar ñu bokk benn plateau mais ñëw na ba pare toog ba pare xamatul nu muy def mu toog waaye question boobu daf ko frappé ba dafa mujj ñàkk tooy xib xamatul lu muy wax boo ko posé question muy xesenu di xool gauche droite li mu mujj mooy ah dafa quitté li nga xam ne mooy plateau ba tekki micro bi gedd dem may laaj nag mbokk yi Moustapha Dramé ak fi mu tollu ah ak li mu yàgg a tooge plateau Moustapha Dramé est ce que mën nañu ko wax loo xam ne day gedd li nga xam ne mooy plateau bi te pour man li ko Soxna Aida Saliou wax da koo tontu rek dafa wax ne musique dafa xaraam Soxna Aida Saliou na ko li nga xam ne mooy kàcc ay fen wax lu dëgg ak musique lan moo gën a araam te yaakaar na yaakaar naa alxuraan moo wax loolu da koo laajaat question bi mu gedd dem dafa mel ni kon ah ku xar ku moom ku moom xar mi rek nga bàyyi buum bi mbokk yi yéen ñi seetaan Click Dakar 221 xalaat leen loolu ki nga xam ne mooy Big Taf aussi tam dafa mujj vraiment am lu ko metti ki nga xam ne mooy Bijou Ngoné moom dafa jaaxle ba musóor bi dafa mujj tas sax ci biir émission bi ñu wax nag ah Aïda soxna Aïda la grande voyante jigéen ji mën góor dàq nag ki nga mooy Moustapha Dramé ci plateau bi ginnaaw bi ñu bokkee benn plateau 10 minutes Moustapha Dramé xamatul muy wax daa mujj gedd plateau bi may wax Moustapha Dramé ak li mu def ci média li mu toog ci plateau waruñu ko wax lu koy versé ba muy quitté li nga xam mooy plateau bi doy na waar mbokk yi dameen bàyyi ngeen càmbar loolu